mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi am tey benn gan bu ñu ñëw euh, seet si di Babacar Dieng nekk euh, rappeur mu am loo xam ni daf ko dund ci biir réew mi ak ay takk der euh, xam naa rek deen yaatal léegi ci waxtaan Babacar ñu ngi lay nuyu. waa ñu lay sant waaw maa ngi nuyu Seydou kii Pape Maguette bon sama tur dëgg-dëgg Serigne Babacar Dieng la. Mhm. je suis rappeur journaliste bon. mën nañ wax sax bañ a wax journaliste nañ wax contributeur. contributeur waaw mm. de la presse en ligne. boo mm. tapé sëñ Babacar Dieng site bu la neex wala sur Google. Mm. di nga gis article yu nekk. di ma ci di nga gis loo fa gis daal Serigne Babacar Dieng xamal ne maa ko bind. Mm-hmm. bon par à tous modestie nag quoi mais lu tax ma ñëw fii. voilà mooy mooy li tax nga ñëw fii tey dafa mel ni ki dafa am loo xam ni dund nga ko. ak yoon. léegi mën nga ñu wax li nga xam ne dund nga ko te mu naqari la fan la commencé.

ci biir prison euh, Aba euh, Babacar Aba Mbay Mbay bu nekk parti socialiste Salis keroog invité nañ ko je peux citer télé bi. Mhm, jàkkaarloo. Mhm. Euh, mu wax benn ba wax ne jamais mu ne c'est resté là parce que dans ko jàpp tout nu ñu devant des inconnus. Mhm. Billahi wallahi ta'ala. dama jooy. te Billahi wallahi ta'ala. li may wax nii. Mm. su fekkee amul yàlla naa torox. expliquer ñu sa problème bi. sama problème. Mm-hmm. man ñu ma xamul man maay magu rakku jee mosku mm-hmm. ñu bëri xam nañ ko Dakar. Mm-hmm. man maay rakku jee environnement professeur Lamine Gueye la jàngale ba retraite. cerise sur sama mag gendarme la Aate Diallo muy Ahmed Tidiane Diallo. fële ca camp. Samba Jéeri Diallo. gis nga bu fekkoon mu ngi dund tey. billaahi du ma ñëw Sénégal wala après laa ñëw Sénégal. parce que ba may jógee fële ci ca ca ca police ba dama leen wax ne ne tey jii coow li moom c'est la police contre la gendarmerie. gis nga policier bu ma entendre dafa ne yow booy yow est-ce que wér nga est-ce que xam nga li ngay wax. léegi nga ñëwaat ci coow li lan la exactement. walla pour ñu comprendre ko. voilà coow li. Mhm. man euh, rappeur laa woon. rappeur laa woon ma génne man maa man maa génne sonw ñoo doon toog di naan ataaya bu Ismaël Lo. Mm-hmm. y' a beaucoup de reprises. Mm-hmm. man maa ci dàqale te Ismaël Lo ci boppam moo ma ko wax. Mm-hmm. billaahi wallaahi taalaahi. ma am ci fierté lool. am ci mu doon sama carte d'identité tey jii rappeur bu ma tase rek su ma nee ko man maa def son reprise ñoo doon toog di naan ataaya rek mu ne ah yee loolu rek carte la. même bu fekkoon hip hop bu demoon ba deux mille vingt quatre. deux mille quarante cinq sax. bu ma nee maa defoon loolu rek man. tak na ba léegi da nga don liggéey nga am ak ak police ma ma son en 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 bon je pense que 2014 wala 2015 2016 lan ma affecté euh ki Sénélec Thiaré li may wax nak ñima wara war a ma mais histoire boko raconté wul numu damay damay damay damay nit ñi duñu comprendre mm. te ñooñu tamit bi dara toñuma ñu ma mais dañoo bok ci histoire mm. dañoo bok ci histoire te ma ngi jéggulu ci nu ma leen tuddee peut-être ñoom du leen neex mais su ma ko waxulee mm. man dama nekk ci presse en ligne fi mu ne nii toog sama sama rédaction di souffrir à chaque fois ñu jàpp Guy Marius Sagna dugal ko ci fourgon te man dugal nañu ci fourgon ci jaay doole léegi naka lañ la jaayee doole waaw léegi faut laay expliquer. Mm. parce que nan ma baal rek il faut que may def ay ay ay transition pour ñu mm. comprendre. waaw il fut un temps gars yi ont doon toj bus yi. dañu doon toj bus yi. waaw maître Moussa Diop. Mm. ont ay gros bras yu la ay lakos yu à mon logo Dakar dem de bi. daan si Dakar dem dikk bi daan nga gis trois à quatre personnes yu dugg euh, ñëw pour xëbal euh, potentiel. casseur assurer sécurité quoi Ouais, pour potentiel casseur yi. parce que gars yi dañu doon toj kii bi. léegi boo demee postu Thiaroye instant yi temps dafa nice. entrée bi bu njëkk ba. Euh, waa sénégalais dañoo permettre tout au long du mur permettre kuy jaay dékki kuy jaay añ kuy jaay reer. Euh, kuy jaay café kuy jaay hausa ñoom ñëpp ci mur bi. léegi jour boobu nag chauffeur Dakar Dem Dikk foofu dépôt la quoi dépôt Dakar Dem Dikk dañoo doon plaindre ne foofu dugg bi day metti ñu it plus de 25 billahi wallahi wallaahi taalaay plus de 25 gros bras ñëw mini militaire ñëw jëlee leen fa. comme man dama amoon benn collègue bu ma doon liggéeyal kooku moo ma mag 60 lay am et quelque muy tudd Omar Dia maa ngi ñoo doon permuté mais moom dañ ko doon wax grand mais comme man rappeur la xam nga rappeur calli bi nii cër bi mm. duñu la ko jox parce que mm. rappeurs yi bu ñu yorul dan da leen da leen di jox kii ak ak gardiennage xam gardien rek nuu yow yow yaa ngi garde maa ngi garde boobu maa ngi garde ci Senelec waaw bokkoo ak gros bras yi bokk ma. ak gros bras yu ñëw déedéet boobu ñëw dama ko fekke moo tax ma lay expliqué nii. Mm. léegi jour boobu maa monté maa mm. nekkoon faction. Mm. léegi ñu ñu ñu ñu kii leen saa yu ñëw laaj ma. laaj ñu ma ñu ñëw ci portail yu parce que am na côté poste courant bi am na fu yaatu. Mm-hmm. ñu def ko genre luuma. marché jeudi. Mm-hmm. man maa ngi woon ci biir. gis nga ak gardien yu may seetaan mën nañ seede loolu maanaam bëri na ay gardien yu nu dàq ay visu yu nu dàq parce que benn waay moo ñëw gaare foofu rek. fay otom dem inspecteur bi ñëw fekk ne gardien bi doon nelaw te pourtant gardien bi mënoon na dem tuuri ndox mënoon na dem def benn besoin ndékki añ mhm. ñu dàq ko ci noonu wala ñu jëlee ko foofu mhm. mais ba ma génnee gis loolu ma xam ne kon ñii dañ jàpp ne man muus laa mhm. moo tax du leen def dara parce que bu fekkoon ne billaay je suis sûr que bu doon Omar Dia la day ñëw ne ko grand Dia ah dañoo eh, dañoo jënd suñu suñu matériel ba pare ah dañoo nar a yàq suñu suñuy suñu suñu suñu war a jaay day day day seey day dañuy nar a perte quoi kon doo ñu may fii ñu këlo këlo jaay lu nu lu nu comme defuñu loolu ma génn attaqué ñëw comme bay aliment l'image de ku ku tàng ku chef ku ku gaynde quoi ñëw ne leen ay eh, jug leen fii nangam nangam nangam nangam nangam fekk am na koo xam ne ci ci làmb yi loolu la ma ko fàtte woon wax euh, kooku jarbaata Ablaye Wade la loolu nag li ma lay wax ni leeruma mais loolu na ma ko wax moom lan la woon ci gros bras yi la kooku raa de Sénélec la dama lay wax histoire am bu ndaw ñoom ñoo ma ko wax loolu nag c'est à vérifier. ñu ne ma Abdoulaye Wade ba mu ko woowee Palais. Hmm. dem na foofu mais ba mu ko laajee dafa ne ko mu may ko euh, paasu Italie. Hmm. ba mu demee Italie dañ koo refoulé ba mu ñëwee xel bi Lambert. Hmm. léegi si la ba mu ba mu ba mu ba mu euh, nekkee nit si la commencé ñëw ci raa bi di def ay dilam bëgguma wax ay wax yu ñaaw quoi. def ay dilam mën nga ñu wax sa problème exactement rek. waaw léegi jour dem ba police. jour boobu nag. moom ci boppam dafa am numéro suñu contrôleur. Mamadou Ba. léegi ba mu ñëwee jour boobu chef d' agence baa nga fa woo woowul sama benn supérieur agence Senelec yaa ngi foofu woowuñu benn supérieur yow koo xam ne mooy raa maanaam yow la fa la fa réer buñ koy seet bëgguma yàq deram buñ koy seet duñ ko ci génne mhm. mu woo Mamadou Mamadou Ba sëñ Babacar mu ngi déconné Mamadou Ba jege Senelec euh, Sicap Mbao jël taxi ñëw gaare yow boo ñëwee fekk say sa élément di xuloo di xeex doo ñëw taxaw ci wetam doole ko Mm. mais mu dem taxawee ne ci portam ne mais sëñ Babacar Dieng fii comme son enfant. Mm-hmm. te jour boobu amoon naa contentieux ak ak société bu ma doon lekk parce que je touchais cinquante waroon ci kii bi yëpp pétition pour gars yokk. ngeen def. non foofu c'est important may ma tuuti rek foofu foofu laay daaneel bi dañu doon wax pour ñu yokkal ba ñu yokkee première vague deuxième vague troisième ci laa waroon bokk ñu arrêté Konaté boobu dama ko mere ba léegi parce que sinon war woon ñëw di jël suma sama signature pour xeexee ma. d'accord comme nag. léegi nag ba ma woowee euh, Mamadou Ba ba mu dugg see dafa ñëw ne ma je sëñ Babacar Dieng fii ma dugg si ne ko Mamadou Ba yaay sama supérieur yaay sama contrôleur mu ne ko waaw ah, ma ne maay sa gardien ma ne ko waaw ah, ma ne ko bàyyi naa mu insisté ma ne ko damay nangam tànde bàyyi naa mu mu jaaxle mu woo Luque sunu ressources humaines hmm. mu ne ko allo Luque sëñ Babacar Dieng mu may ki saaga ma ne ko comme wax na saaga du ma ci delloo.

mooy so keneen ku ma doon ku ma doon montel mooy mm. paa bi. Mm. dafa am beneen xarit bu nekk beneen société man Scorpion laa nekk am beneen société bu tudd Bessi ñoom ñaar ay ay vétéran la xam naa ñoo bokkoon armée yooyu ñu toog ñuy ataaya. Mm. quelque temps euh, oto fourgon bi taxaw si buntu kii bi. ñu dugg si na ma yaay xalifa bon sëñ Babacar ñee ak xalifa bi. waaw ah, benn quoi ñoo ma yaay xalifa mu ne ko waaw. mu ne ma bon euh, kii nee na da ko génnal jam quoi paaka. ma ne ko ban paaka gars yi ñoom kii commencé ñam jaa ak kii grand bi oh fàtte sax turam hmm. ñu wax commencé négocier ma ne non les bàyyi la nu ma obtempéré noonu moo tax kenn mën a tuum hmm. ma dugg ci oto bi ci fourgon bi ñu booleem ma ak ASP ñaari policier yi nekk ci kanam oto bi. fourgon boobu lan lañ ay policiers lañ. policier la ak ASP. ak ASP. ASP bi laa nekkal ci ginnaaw. Hmm. ñaari policier yi nekk ci kanam. ASP bi ñu commencé wax police ginnaaw raay waxuma nag ndax ndax ba léegi actuel commissaire bi la wala jóge na fa man kooku lijjantiwuma ko ki ma lijjanti mooy saaxo parce que saaxo bu ma ko lijjantee rek dina ma wax ban ban commissaire la woo. parce que hmm. sàcc ku dul euh, sàcc bu dul rëcc jaru yàq say nelaw maanaam hmm. ñëpp ñu ci taqee dina ma ko wax. après nga dem police. léegi dégg ci yoon bi. Hmm. sa laaj ma ASP ah, bi laaj ma ba ma laajee ma expliqué ba si yàgg mu ne ma non li li injustice la dama koy bañ. bu bu la waxee rek ne ko génn ma jam ma ne ko ma jam bay génn jam ba ñu wàccee benn policier bu mel ne kaña ngeen baal ma ci wax mu ñëw di ñàngal ma ñëw ba si kanamam def nii gis nga boo tooñu da ngay am fit comme man tey ñu ma am fit ku ma gëmul nag baax na ñu ma teg dof baal naa leen. mais comme nga dem police. ma dugg ba ma ñëwee dugg taxaw. Mm. fekk ñaari cellule la bu ginnaaw raay ginnaaw raay sud ba ma ñëwee y avait sept parce que lu tax ma set sept bandits ñoom ñëpp ay. gaz man toxique. ay defkat lañ daal ñu dem ba may dugal foofu ñu xool ma ñu ma cliné. ñu dugal ma ci benn bu vide bi ma ne leen ma leen ma leen ironiser de ma ne leen non bàyyi leen fii ñu ne ma non fii ngay dugg ma ironiser de ma ne ñu ne fii lay dugg quelque temps ñu ñu ñëw ne ma bon comme dimanche la inspecteur kii bi commissaire bi nekk fi da nga fiy fanaan ba suba. au nom de quoi pas Maguette au nom de quoi lan la def yow Paa yow di nga nangu ñu ne la police ñëw rek ne la sëñ Babacar Dieng moo ne la da nga ko génnal jàmm rek ñu jël takk rek yóbbu tëj ba pare da ngay xaar ba suba pour pour gisat commissaire. Mm-hmm. kooku. kooku kooku kooku golo la golo la ñuy def loolu mais nit dëggantaan njaay boo xam ne ñoom ba ñuy tëj gardien lañ tëj mais man mm. rappeur laa tëj te rappeur laay doon ba dee. Mm. jour rappeur parce que lu tax ma lay wax ne rappeur laa rappeur bi moo tax ma mën a bind article sax journaliste. te te bi nga ñëwee ci police bi amul kenn commandant wala kenn. ku la entendre parce que on gis nga lu ma doon gis ci filmé yëpp dara gis nga lu ñuy gis ci filmé yëpp dara amu ci maanaam salut sëñ Babacar Dieng noo mm. foo dëkk loo ah, génn ak maanaam dara. billahi wala da nga ñëw rek ñu tijji giri dugal la. ñu tijji giri wi dugal ma billahi wala taala am benen gaañ benn policier bu tudd chat mhm. bon chat sur ba bam ko expliquer mané ko xol tapel tapel ci YouTube question polémique question avec est polémique avec S mu gis sama benn émission YouTube mané ko tapel journal de l'Intos mu gis sama émission légui ba ko tourné mu xol ma. xolaat kii bi quoi mu ne non y a quelque chose am na lu lu lu lu ko raté quoi. Mhm. maam mënul gis euh, Euh, après nga wax naa ko ni que ñëpp xool bi quoi mënul xool euh, vidéo yu yu casé yooyu mm-hmm. fekk waa yoo xam ne casé wul quoi mais casé boobu lan ma war a laaj lu tax man ma dérangé wu quoi parce que déjà man instant boobu sama moo saan naa mm. parce que je me suis dit li ma dal nii koo xam ne man ma gardien moo censé jàpp sàcc koo xam ne mooy raada sàcc sàccu sàccu Senelec di ma coffre mm. non loolu billaahi wala taala man je me demande sax ñi tal sen bop sax du loolu mo len tal parce que yoy ma lay wax noonu bo ma pa maget yow bo ma mënul comprendre mm. kenn du ma comprendre mm-hmm. so mënul comprendre loolu mm-hmm. parce que amna ñuy wax naan non garde à vie rek du dara parce que da nga japp ne man duma dara mm-hmm. fi kenn gënuma gënuma fi kenn mais kenn gënuma te ñepp ñuma tek dof bal na leen ci xol bu sedd gu fu ñu taxaw ni fu ko téye nii mm. maam samay rappeurs sama borom rapport yeb dañ ma off sama borom ah ah ñu ma bokkal euh, bon kuréel du ma wax ban kuréel diine. Hmm. dan ma off. Hmm. Ah, sama moroomu euh, waa kër sax sama waa kër. am lu hmm. gën a métti. sa waa kër sax loolu lan la jàppee maanaam mbedd mi sax lu ñu jàpp ñoom jàpp nañ ko mais anyway. yow la lan lañ la jàppee euh, Babacar da nga xaw manqué. maanaam Babacar dafa xaw a dof léegi. xam nga lu ñu jàpp. parce que yu may def la maanaam nee naa la. su ma woon jour boobu ci biir cage bi su ma doon taxaw maa ngi doon biir di yëngal comme un rappeur américain bu nekk ci cage bi mm. mais man je savais que su ma saaga deen tijji grille bi fekk ma foofu dóor ma ay livre ba ma nooy mm-hmm. je l'ai pas fait mm-hmm. lu def ma ko mm-hmm. on m'a on m'a <laughs> on m'a dañ nëbb jant bi arbitrairement pourquoi pourquoi mënu moon euh, kii pour corser sama sama cas déedéet mais li ma mënoon jëmbale yooxu def fii jooju xam nga te li ma ci gën a métti durant tout le ci ay ASP ñoo ma doon toppatoo

xam nga yàq yàq sa xel yàq sa xol daal loolu nga sentir quoi. merci beaucoup foofu dañoo xotti sama quadrante. Mhm. maanaam loolu ñu def noonu. Mhm. depuis jour boobu depuis jour boobu laa. waaw nekkatuma sénégalais depuis jour boobu respecté tuma police. billaahi wallaahi taalaay. Mhm. même couvre-feu bi nii à n'importe quelle heure laay dox te bu ma tasee ak policier policier bu ma xoolee je suis censé peur. waaw kot kot mais su ma taxawee xam nga muy jàpp ndeysaan day jàpp ne waa ji wérul wérul parce que en bu ma leen en sax xamuñu ko mhm. gis nga bunt rond-point Sandaga mhm. dama fay taxaw di yooxu lion def li ma neex malgré li ma neex noonu am na ñu ma jàppee dof de mais policiers yooyu am na yuy tàkk sama kaw